Aminata Touré mu ngi doon wëyal programme bii di yoonu yokkute bi mu nekkee premier ministre nag ki nga xam ne moo ko wutu woon di Mahammed Boun Abdallah Dionne moom dafa ñëw indi gis-gis bu bees donte sax mu ngi doon xamle ne yoonu yokkute bi am na ay jéego yu mu def ba ci croissance bu toll ci 4,5 pour cent ci atum 2014 waaye moom programme bi mu sukkandiku muy plan Sénégal émergent ci déclaration politique général bu mu amaloon ca jamono jooje mu ci xamle ne plan bi day bépp engagement politique sectoriel bu ñeel dundinu sénégalais yi mu doonoon ki ko njëkk a doxal moom nag ñu tàbb ko premier ministre ci atum 2014 delloo si waat ko itam ci atum 2017 mu mel ni moo nekkoon premier ministre bi nga xam ne moom la Macky Sall gënoon ràññee laata muy supprimer post bi technocrate bi lee fekk baax ci atum 1959 ca Gossas moom nag mi ngi jaare ca IBM ak CEDEAO laata muy doon ab diplomate mu doonoon chef de bureau économique bu ambassade Sénégal ba nekk ca Paris ak itam expert ca conférence des Nations Unies ñeel njënd ak njaay ak développement ans ca Maghreb loolee di wane parcours bu am dayo parcours boobee sax tax ba sénégalais yu bëri ràññee ko ba ci kii di président Macky Sall Boun Abdallah Dionne moom sax moom mooy premier ministre bi nga xam ne Macky Sall musu ko dàq wala remplacer ko ginnaaw bu ñu amalee suppression post premier ministre bi ca la dem dem nag te musul tàq